ci xam-xam yooyu nga xam ne nit yàlla yi rek ñoo xam radiyallahu anhu mu ne minaa bokk na ci ilmu xam-xam ak tashbiha melale di nuróole di nuru nuróo bi man ak ci bi man ci koo xam ne laa yaqbal du nangu at tashbiha ku kuñu ku nuróole ak moom waa bi man ak ci koo xam ne yaqbal dana nangu at tashbiha nu nuróole ak moom wax woote loolu kat mahmudun lu ñu gërëm la wa mazmumun te lu ñu ngaañu la tamit maanaam ñaari parti moo ci am maanaam di nuru wala di jël ay attribut ak ay melo di melaloo ak koo xamante ne mm-hmm. daa dagan naa meloloo maanaam euh, euh, mëneef naa meloo ak meloo ak moom ak koo xam ne mëneefuta meloo ak moom nga koy jéem a ngay jéem a mel noona wala ñuy jël mbir di ko jéem a melale ak loola loolu nag dafa am lu ñu ci ŋàññ am lu ci dafa am luñ ci tagg am luñ ci ŋàññ mu ne fal mahmudu li nga xam ne gërëm nañ ko mooy li ñu tagg tashbihu mooy melak melaleeg aalimu taklifi aalimu euh, maanaam àdduna taklif mooy fi ñuy toggee nit ñi jëf min ha ci moom bi aalami ci melok ak tasbiix maanaam bi aalami ci àdduna ak tasbiix bi nga xamante ne maanaam moom sàbbaal moo fa nekk maanaam àdduna bi nga xamante ne fi dañ fiy togg jëf comme fii nii malaaka yi ñoom seen àdduna foofu dañuy sàbbaal rek yu sabbixuuna layla wan nahaara laa yafturuun comme la alxuraan wax ñoom dañuy sàbbaal yàlla guddeeg bëccëg te du duñu dog abadan ñu nekk fi ne sonn nañ tay affaire bi metti na et yooyu amul alors fii nag suñu ñun suñu jaamu yàlla yëpp tas kii la taklif la maanaam dañu ko dañoo togg ay jëf meloo melale melaloo googu nuróole googu noonu wakka bi ak melale al insaan nit bi man ci koo xamante ne taqat taqaddamahu mu jiitu na ko fii makaarimil axlaaq ci te daa ngay jikko yi loolu par exemple le fait que tamit maanaam kon euh, ñaar yooyu dañ leen a tagg ci melale le fait que par exemple ko xamantene mom alamu te teg taklif la nek moy aduna bi nga xamantene dañ fi toggaate ay jëf manam nit daf fi nek responsable mm-hmm. ak euh, ba la nga xamantene nit ki du nek responsable benen aduna ba la nga xamantene manam fofu amul kenn ku fa nek responsable ñepp ay malaaka Nyom par exemple mm-hmm. ñom duñu responsable manam kenn togu leen jëf mm-hmm. ñom dañuy sabbal yalla rek <coughs> loolu benn façon takk kii la euh, melala la nuróole la goo xamante ne dañ koo tagg mu am beneen façon bu nuróole bu ñu tagg mooy comme nit koo xamante ne day jéem nuru ak di mel di jël jikkoy koo xamante ne moom moo ko jiitu woon ci jikkoy rafet yi wal mazmum li ñu ngàññ ak tashbih mooy nuróole bi sifaati ci meloy iblis maanaam di nit koo xam ne moom day jël meloy iblis di jox jël jikkoy iblis mhm. wa amma ndaal at bi melo nuru la bil xaq ci buur yàlla taala aji kawe ji nag maanaam mooy yàlla maanaam di fexe bay nuroo la di nuru yàlla nag fi saxi ci jéllale wala afi ak jéggale wa nahwi zalika ak yu mel ni ko noonu foofu loolu nag al matlubu lu ñu sàkku la en dafa aksari ahlillahi li ëpp ci nitu yàlla yi taala aji kawe ji mhm. wa amma ndaal nag indal muhaqqiqiina ñi nga xamante ñoom ñooy ñi gën xóot ci ñoom nga xamante ne ñoom ñoo gën a màgg ci ñoom ba gën a xam affaire yi dëgg dëgg dëgg falaa yasex lool du yéwén maanaam du wér abadan mukk am maa ne par exemple yàlla comme day jéggale di jéllale man danaa jéggale di jéllale yàlla dafay jéllale day day day jéggale waa maanaam di nga wax loolu par exemple lool noonu di nuru nuru lu yàlla ci wàllu googu kooku li ëpp ci nitu yàlla yi maanaam Euh, dañ koy sàkku dañ naan lool kat lu ñuy sàkku la ci jaam bi maanaam jàmbi dañuy sàkku ci moom mu mel noonu mais nag mu ne mais ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñooy nitu yàlla yu mag yee mag pire nga xam ne comprendre nañ yu bari ñooñu dañ ne loolu ñoom dañuy jàpp ne loolu dëgg yëwénul loolu maanaam mënuta ne loolu du baax abadan wa maa qaalaan daal li nga xam ne wax na bii ci moom mi xukamaa yi ah? mm-hmm. maanaam euh, ci ñi nga xam ne ay xokama lañ mooy sage yu mag yi mm-hmm. ah mm-hmm. wa maa waxul bokk bi ci loolu maanaam waxul loolu minal xokama yi ci ñi nga xam ne ñooy sage yu mag yi mm-hmm. illaa lu dul man koo xamante ne laa maarifata la amul xam-xam dëgg-dëgg bi xaqaayiq ci xaqiqa kay ku amul xam-xam ci xaqiqa yi dëgg-dëgg rek moom mooy moom mooy wax loolu mooy wax ne nit ki dañ ko mën a mën maanaam daa war di fexe bay nuru yàlla ki di ni muy jéggale djelale mais ko xam haqiqa mbiri dina xamne yalla yàlla ak jaam tellement manam sen différence tellement dafa énorme maanaam y a même pas lieu de comparaison mm-hmm. de telle sorte que munuñu ko manam lolu motax tax ñi xam haqiqa yoy ñom dañuy xamne lolu loolu wi bi voilà parce que yalla ni muy jéggale ak ni muy ak ñun bokkuñu sax façon te bokkuñu sax li muy ci mom bokku li muy ci ñun voilà kon loolu ben xeetu xam-xam la moy le fait que ni nuru lu bobu nuru nuru lu bobu non loolu rek déjà ben xeetu xam-xam la bo xamné ñom ñoom na ñom ño xam lan la réellement lan mo nekk ci biir tout ce qui tourne autour wa mi naa bokk na ci elmu xam-xam hukm al-layl guddi wan nahar ak becc wal wuluji ak euh duggu wa takwiru maanaam le fait que guddeeg bëccëg di ñuy duggante wa takwiir ak wër-wërloo bi maanaam la fait que guddi di enroulé wu ci bëccëg bëccëg di enroulé wu ci kaw guddi comme li Alxuraan wax yu kawiru layla wan nahaar mooy kawiru nahaara ala layl wal ghashiyan ak muur maanaam le fait que par exemple bu guddi duggee day muur bëccëg complètement ak bu bëccëg duggee day muur guddi complètement wa ixraajal kasiir ak le fait que ñuy mën a génnee lu bare minal waahid ci benn le fait que par exemple lu bare bare di génnee ci benn jëmmu kese comme nit ki ben nit la hmm. mais pourtant mu am lu mat téeméeri doom masalan wala xar bi am doom yu bari wala ganar gi et cetera waaw wala nga jël sab sab sab sab dom, sab dom, pep dugub sul ko mu genn def ay ay ay centaine pep dugub yu yu ci genné waaw voilà ak guddi géeg bëccëg gi ni ak yooyu am na xam-xam bu spécial bu aju ci loolu kese boo xam ñoom ñoo xam ñoom aarifu na yi hmm? bokk na ci xam-xam yooyu elmu xam-xamu asbaabu sabab yi tax nuzulul kitaab kutubi yàlla wàccuk téere yi am sabab bi tax cause réel yi tax téere yi wàcc ma ak li nga xam ne nazala wàcc na ak li nga xamante ne tamit day wàcc lépp luy wàcc rek illaa lu dul kalaamun ak kàddu go xam ne ala rusuli ci yenente yi lay wàcc alayhim salaatu wassalaam wa kutubi ak ah, wa wa te ñu bind ko anil rusuli jële ko ci yenente yi alayhim salaam ah, maa laa xam ne kutiba bindeef na ko fil kutubi ci téere yi maa loo xam ne ah, maa kuti maanaam loo xam ne kenn bindu ko ci téere yi wala boog manaam li nga xamante ne daal ay kàddu la ah, yu jugee ci yeneen yi alayhi salaatu wassalaam te nekkul ci téere yi ak li nga xamante ne lépp luy wax bu jugee ci yàlla par exemple le fait que différence par exemple bu dee suñu diin maanaam bu dee l'islam tey kii wala boog euh, xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam par exemple euh, lu tax alquran wàcc ak tamit lan moo ko différencier ak xadiis yi pour pourquoi par exemple lépp nekkul alquran kese wala nekk xat nekk xadiis kese lan moo tax par exemple xadis qudus yi existé à part ak xadis te xadis kese existé ak yooyu noonu nga xam ne ay xam-xam yu rëy yu aju ci ginnaaw ah déet mais loolu nag man xawma ko da ñoom ñu xam <laughs> wa min a bokk na ci al mu xam-xamu kashful ghitaay wuññi kiiraay gi maanaam rideau bu diis bi nga xam ne moo dox ci diggante nit ñi maanaam moo nekk ci kanamu nit ñi wa ak képp koo xam kushifa wuññëef na anhum wëlif leen ñi nga xam ne wa man ak ñi nga xam ne ku fa wuññëef la anhum wëlif leen alxitaaw kiiraay googu xattaa mbéta shahadu ñu jàkkaarloo mën a contempler al amra mbir yi alaama ci kaw li nga xam ne huwa alayhi moom la nekkee dëgg-dëgg waaw hal ndax yu xaatabuuna ñooñu dañuy wax ñoom bil aadaabi ci teggin as-sam'iyat yi ñuy dégg aw wala boog yaqtadi day waral daalika al maqaama boobu la maqaama adduhul ak deñ wa zahaba ak demuk al aql aqlil taklif xel ak xeluk manam togg gi ñuy togg jëf wala wala bok ak ki tak ñu tak leen rek ci ne leen li mu yi li lañu wax ne mu yi nañ melni ñom nu ñu est-ce que dañu wara conformer totalement ak lool manam moy par exemple ko xamne yàlla daf ko wuññi complètement dindi rideau bi dox ci digganteem ba muy gis mbir yi maanaam diggante ak réel xaqaayiq yi nga xam ne moom xaqiqa réellement mbir yi lay gis di ko mën a compla contempler exactement ni mu nekkee est-ce que ñooñu dañ leen di wax ne leen teggin yi ñu wax te ñu nekk ci téere yi ci alquran ci sunna et cetera wala borom xam-xam yi yaxal ko rahmatullah alayhim est-ce que teggin yooyu. ñoom dañ leen di wax ne obligé dañoo war a sàmmonteeg mu noonu à cent pour cent wala ñoom am na yeneen yoo xamante ne ñoom yooyu ñoom da leen di concerné waaw wala déet loolu nag sikk nekku ci ne dafa am teqantal maanaam yi nga xamante ne moom mooy teggin yi ñëw ci alxuraan ak sunna laa but dañu ñu sàmmonteeg moom kooku mënta ñàkk yi boroom xam-xam yi wax nag parce que seen xalaatu bopp yooyu moom mën nañ cee bañ a sàmmonteeg moom ça dépend ci circonstances yi ak maanaam euh, ñoom ñooy ñan ak ci ak lan la gis exactement parce que ñoom boroom maqaama yooyu ñoo gën a xam teggi nee ñu war a sàmmonteel wa mi naa bokk na ci xam-xam yooyu nga xam ne ñoom rek ñoo ko xam tamit xel mm-hmm. mu dara ki xam-xamu kaaw yi ga astaghfirullah xam-xamu maanaam jote waxal ndax damaanu darki maanaam euh, dara xam-xamu jote moy accès accès accès du lol la moy accès voilà xam-xam bobu fi daril akhirati ci këru gu mujju gi yakunu dana nek alal muflis ki nga xamne mom muflis la muflis moy ko xamantene dañ ko saisir xam nga kuñ saisir han voilà aw wala al musir iza kana iza kana buñu nekke demna shakhsin ci maanaam ci diggante nit fi duniyaa ci àdduna bu ñu nekkee ci nit ma fi duniyaa ci àdduna wala muy wax fi yaaxu te mataluñ ko mooy comme nit koo xamante ne euh, dañoo ñëw euh, dabe ko maanaam dab ko ba war koo mën a jël euh, li nga xamante ne maanaam moom la la waroon a am maanaam moom la waroon a am ci tiyaaba uh-huh. ñu dem ba war koo saisir am keneen koo xamante ne moom li tax maanaam parce que comme tey nit bu tooñee nit nit yo exemple wala boog nit amel bor nit mhm. fayu ko ñu dem àllaaxira ki nga xamante ne dañ ko waroon a bu ñu ko saisiree dañuy jël ay tiyaaba mbaa ñu jël ay bàkkaar waa ji jox ko mhm. moom contraire bi ak maanaam kon léegi problème bi mooy garantie bi léegi bu waa ji demee ba ni man baal naa ko waa ji baal na ko est-ce bu ñu demee ba àllaaxira kan ci ñoom ñaar mooy profito est-ce que kii rek mooy profito kii joxe wala kii ñu jox moom mooy profit wala kii nga xamante ne moom lañu waroon a hmm? mm-hmm. maanaam moom lañu waroon a saisir moom mooy profito ñoom ñaar kan moo ciy profito loolu la mm-hmm. voilà maanaam li nga xamante ne moom mooy garanti yi nekk autour de loolu yépp ci njariñ yépp kan ci bopp kan lañuy jox garantie boobu wa min a bokk na ci xam-xam yooyu ilmu xam-xamu kalaamil mawta kàddug ñett yi ñii de seen kàddu yi wa muxaatabate ak jokkalante baadoom lenn ci yéen lenn ci ñoom baadaan ak leneen ña maanaam jokkalante débat waxtaan discussion waa kay bi nga xamante ne mooy am entre ñii de waaw fii xaali mawtihim ci seen xaalub deega waxal ndax xaaluhum see rek xaal baadal mawti ginnaaw ba ñu deewee mislu day kemook xaalihim seenok xaal xablal ijaade lu jiitu yàlla di leen amal am laa wala déet ndax ki dee xaalam moom day nuroo avant yàlla di ko bind xam nga avant yàlla di bind nit ñi dañ dee woon kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un nan ngeen di weddee ci yàlla fekk nag moom fekk yéen da ngeen a deewoon moom mu amal leen maanaam le fait que nit ki ñàkk am loolu ak dee la léegi nag mu dundal leen mu ne mu rayaat leen ba pare dana daan dundal ak yawmal qiyaamat léegi nag dee gi nga xamante ne moom mooy ñaareelu dee mooy dee ñaareelu dee gi mooy nit ñu bu ñu dundee après ñu dee est-ce que dee googu suñu xaal ba ñu nekkee est-ce que mook xaal ba ñu njëkkoon a ne avant ñuy am benn la waaw wala déet woow gis nga maanaam ak la fait que xam-xam bi aju ci discussion bi ñi dee di waxtaanee parce que ñi dee wax dañuy waxtaan am na ay discussion yu ñu am mm-hmm. xam-xam bi aju ci loolu tamit seen kàddu ak ku dee bu waxee nan ngay xamee ni lii la wax mu ne wax gis nga bii xam-xam xel mun na fi suñ xam-xam bu am solo la <laughs> loo koy doyee looy <laughs> doyee xam-xam boobu. benn benn affaire waaw mais lu muy lu après mu jariñ la lan. <laughs> waaw yàlla baax na. woo woo mi naa bokk na ci xam-xam yooyu nga xam ne xam-xamu aarifu ne la radiyallahu yàlla mu taklif yi xam-xamu maanaam taklif togg gi ñuy togg nit jëf yowmal xiyaamati bi su taxawaay ba comme li alquran wax yow ma yuda yow ma yukshaf an saaqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un yéeféer yi comme noonu la jour bi nga xamante ne maanaam bu mbir mi ne këtt ni jonn yooyu yud'awna te ñu woo leen ilal sujudi ci jëm ci sujjóot wala yastati wala yastati'un te duñu mën a am kàttan ci sujjóot mais togg googu comme par exemple le fait que yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam na nan sujud yawmal qiyamah bu malaaka bu ñu leen nafiqi bu ñu leen dañ sujjóot duñ ko man ndax sen sen sen sen sen plomb sen ki bi euh digg ginaaw gi fiñu manam bi war li wara banku moy def comme genre plomb lay def day day day day day xamna duñu mën seug sujud sujjóot amna xam-xam nak bu aju ci le fait que yalla di. am ay di togg jëf nit ñi ci yowmal qiyaamati def leen nangam bàyyi leen nangam yowmal qiyaamati dana am ay ordre ay ay ay injonction yu jóge ci borom bi subhaanahu wa am na nag xam-xam bi nekk autour de loolu noonu loolu daa am xam-xam bu spécial bu cay wax dégg nga wa qabla ak lu jiitu duxuli duxulil duggug aljannati aljanna mu ne wa min huna gis nga ci à partir de foofu gis nga ci foofee xam-xam boobu ku ko xam dina maîtriser waale lii muy bëgg a wax mu ne da wala boog ci foofee nafaat la jariñe ahlal aaraaf waa aaraaf aaraaf comme niñ ko xamee mooy ñu nekk ci diggante aljana ak safara as-sajdatu sujjóot boobaa nag sujjóot ci la leen di jariñe xataa mbete ya daxalu ñu mën a dugg aljana te aljana baada ginnaaw istawa ay yéemoog almisaana màndaxi la maanaam ginnaaw ba nga xamante ne seen jëf yu baax yi seen jëf yu bon yi dañoo tolloo benn nootul benn ba tax ñu ne nañ leen yéen ne yéen duñ leen dugal aljana duñ leen dugal safara da ngeen ne fii ci aaraaf ci diggante bi le fait ñu sujjóot sujjóot googu ñu fay leen ci dara ci la seen balance bay ëppee doole seen balance lu baax li ci lay ëppee doole waaw kay ñu mën a dem falawlaa bu dul woon baqiyatu takaalif li des ci togg googu ju leen di togg jëf hunaaka foofee maa nafaat du leen jariñ til maa nafaatoom du leen woon jariñ tilka sajdati googu la sujjóot bu dul woon ne le fait ke ñu nekk ay responsable moment boobu di exécuter li leen yàlla wax bu ko defee ñu ci mën a jariñoo di ci amee tiyaaba mbaaw ñu bañ ko di ci amee bàkkaar konontoon loolu sujjóot googu du leen jariñ dara am na nag xam-xam buy tourner autour de ça waaye loolu ñoom ñoo ko xam aarifuna billaahi radiyallahu anhum wa minha bokk na ci yooyu la xam-xam ilmu xam-xamub al alaamaati mandarga yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu texe wal asqiya ñi nga xam ne ñoo ñu texee di hmm? moo tax bokk na ci mandarga yooyu mooy la fait que mandarga jote gi nga xam ne moom la nit ñi di jote ci no ne lii nangu nañ ko comme tey nit koo xam ne tey day xam ne acte bii ma def acte bii wala kii ni jëfam yi mu jëf yàlla nangu na ko wala jëfam yi mu def yàlla nangu ko waaw ak tamit xam-xam xam wala wala boog manifestation bi nga xam ne moom lay manifester woo yenn affaire yi ba mën a xam ne masalan tey kii kat Ah, ah jëfam bi indil na ko am utu jox doll na ci moom leer sàngam ak génn na ci moom lan maanaam indi na ci moom lëndëm sàngam yooyu yëpp maanaam walli yooyu dañuy mën a xam nit ki à travers loolu ah waaw ah la xanaa xam nga ni aarif billah piir mhm. bu gisee nit rek day xam loo yooyu yëpp xam-xam boobu day nekk luy leer goo xam ne yàlla da koy sotti ci xolam mu nekk lu naturel ci moom xanaa gisuloo léeg-léeg nit ki ñëw ci benn wàll yu rek fekk c'est la première fois mu gis ko avant muy wax sax mu ne ko yow nangam ak nangam ak nangam mooy say bàkkaar yi ngay def boo bëggee génn ci del def nangam ak nangam bàyyi nangam ak nangam. waaw te te attends te amna benen affaire moy amna leer go xamantene day nek ci manam nit koku bu xam-xam boobu bu ko maîtriser deug deug deug tay nit ki su ñewé ne ko man kat wax deug yalla par exemple man moy sama problème wala man dal wax lu dul dëgg sama problème wala man dal iñaan dal moy sama problème ak yu mel non mom day daal di mëna xam exactement. ban lëndëm ci la ci la daanu ci ban xeetu lëndëm la doon dox rek ci cheminement am jekki-jekki rek seytaane fukk ko ci mën maanaam mu dugg ci lëndëm googu ak ban leer ban ban ban genre torche su dee mën nañ joxe exemple boobu lañ ko war a mën a niitale pour mu génn ci lëndëm googu pour mu mën a xam ne ah d'accord man lii mooy sama problème mu mën a génn ci loolu ban ban ban ban sidit ci yaramam mooy yëngatu yëngatu goo xam ne moom mënu ko maîtriser ba tax mënul bàyyi bàkkaar boobu wàllu bu moom loolu lay xam bu ko gisee ce qui fait ci loolu lay lay moom ci <laughs> loolu lay appliquer réagir ah. soxla jox ma samay kii ma gis nga nag. loolu nag mooy problème bi yëpp gis nga loolu la la xam nga chapitre deux bi ci rimaax loolu moom moom loolu wax na ko ci. bi mu naan boo ma laajee ku mel noonu nan laay def ba am ko parce que yow nga ma tegtal dafa jafe jafe jafe jafe mu ne la sa tontu mi ngi ci ñaari aaya aaya bu njëkk bi mooy fi naan am man yujibul mutarra iza da'ah yàlla mi nga xamante ne xanaa du yàlla mooy ki nga xam ne moom mooy nangul ñaan ñi nga xamante ne moo di nit ko loru su ko ñaanee xanaa gisoo souvent nit su nekkee ci problème dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla da koy bu ñaan yàlla di ko dimbali ndax sincérité bii ne ci moom du ci maqaamam de comme ñu bari luñ koy foggé né da waaj dafa am xamu kawe du lool yéfir yi sax comme niko ko di wax fa iza rakibu fil bahri da'u allaha mukhtasina lahu din suñu yéegee ci géej gi war géej gi ba géej gi yëngatu bu baax ba mu xamni ñi gaay dañuy waaj a alku dañuy ñaan yalla bu len parce que du sincérité bobu rek après yalla da len di dimbali mo ramone fa lamma ila ilal bahri fa iza hum mushrikun bu len musale ba ñu génn ci jéeri ji nag léegi ñu commencé waat bokkaale waat ci ci ci ci continent yi ñu commencé bokkaale waat mais bu ñu nekkee fële ba nga xam ne problème bi moom fi mu toll yàlla rek leen mën a sauver ñuy commencé ñaane yàlla kese ba pare nag yaakaar ko yaakaar gu wér ñaan ko ñaan ko sell avec sincérité loolu nit ku ko am ci digganteem ba yëg vraiment moo tax ba xoola exemple bi mu la joxoon ci chapitre 2 bi dafa la joxoon exemple ki nga xamante ne mooy liir bi bëgg dafa bëgg nàmp te yaayam nekku ni muy am maanaam ni nga xamante ne noonu lay nekkee ci ne faw dafa soxla yaayam ñëw yow boo demee ba sentir loolu noonu ci nitu yàlla ne faw nga am sëriñ bu baax aarif piir bu mën a gindee noonu boo ko sentiree yàlla dina la ko indil problème bi du ne aarif yi ñoo amul déedéet am nañ problème bi moy nit ni ñoo mérité wul dajeeg aarif yooyu. kon fan nga commencé ñaan ba <laughs> commencé ñaan kon dana sama jëf ay instant yi ma waajee dugg naa gis Moustapha soxla naa ko lool. parce que affaire yi ma nekk la waajee dugg na gis ko mu yëngati ma. <laughs> loolu déjà benn problème la. beneen problème bi moo parce que daf ni benn bi moom mooy sérité bi euh, am man yu jibul mu tara iza daahu wax am na beneen aaya bu mu waxati woon euh, subhaanallah walaw sadaqullaha la kaana xayran lahum bu fekkonte ne dëggu nañu seen digganteeg seen borom loolu dana nekk yiw ci ñoom maanaam ko nit ki bu dëggoo diggante mu borom sincère vraiment yàlla na ko dimbali mais nag yooyu ñoo manqué sincérité boobu ak loru googu mais daal ci pour revenir daal xam-xam yooyu xàmmee ni kii day texe ak kii day texee ni ak nan la ñuy xàmmee yooyu ci biir màndarga yooyu ay màndarga la exemple yi yooyu yi ma la jox ci lañ bokk exemple le fait que ngay gis nit xam leer yi wàcce ci moom yan lëndëm ñoo ko song ak canaux yi ñuy jaar pour yegg si ci moom lëndëm yooyu ak fan lañ toll est que dañoo tëj dañoo dem ba tëj leer yi nga canaux leer yi jot doon ñëw ci moom wala jotuñu tëj canaux leer yi ak leer yi est-ce que mën nañu maanaam ak yi ci aju daal maanaam leer yi est que mën nañu dem ba dominer lëndëm gi ci moom wala yu mel noonu ak yi ci aju yëpp tout ce qui tourne autour ñoom yooyu dañ koy mën a xàmmee waaw ak tajalliyaat yi am ci moom maanaam la fait nit jëf benn jëf nga xam ne kii li tax mu def lii lee lee moo tax <coughs> xam nga am na yu bon yoo xamante ne nit nit nit nit mënu koo def lu dul dafa fekk ne dafa am yu garaaw yu mu defoon avant par exemple njabar njabar nit mënu koo def lu dul mu nekk nit ku bon a bon a bon comme ni alxuraan waxe rek tanazzalu ala kulli affakin asim xam nga nu ko qul hal nunabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin waxal la xanaa duma leen xabaare ci ñan la seytaane di wan wàcc ci ñoom mu ne ko day wàcc ñi nga xamante ne ay soskat yu mag lañ ba pare seen xol yi bàkkaar yu bëri ñoo ci fees kooku mooy mën a njabar kooku mooy mën piir piir piir njabar bu ko man bu mel noonu xanaa gisuloo nit sax bu bëggee jàng njabar dañ koy wax ne ko defal mbir moo xamante ne mbir mu ñàkk teggin la waaw moomu ma ko moo tax dañ koy wax ne ko mbir mu ñàkk teg teggin la war a def lu demee nekk ay saw ci kaamil ak ay dëgg ci nangam ak yooyu noonu il faut mu def ko pour man ko kon yow soo gisee nit kuy njabar dangay xam ne ah accord kii nangam la meloon même nit kuy jog di liggéey nit boko pour nga pour mu mën ko def il faut que auparavant mu def yu bon yu garaw ak yeneen ak yeneen moo tax xoolal alxuraan wax comme comme li muy wax danaan nangam lañ def yàlla fa tubi'a ala qulubihim ñu tëj seen xol waaw dañoo def nangam yalla def ni seen xol loolu ngay dégg nit ki noonu lu baax tamit noonu la am na yu baax dëgg yoo xamante ne nit ki bala mu koo def foog mu kawee yàlla may ko dëgg-dëgg vraiment mu def yu baax yu bari avant ba yooyu ñoo ko jural leer yi nga xam ne moom lay emmagasiner ci xolam pour mu mën a continuer def lu baax yenn yi pour mu mën a yegg ci yenn yi kii gisoo ni nit ki léeg-léeg day mën a day day yéemu ci kenn meen kii nan la mën a defee nangam ah ci lu baax hmm. ak nu mu def ba am may bii ak nu def ba souvent day wat ci yoy yu def am lu am voilà day am day beuri yoy di nek ay lere yu ci xolam après day en énergie énergie bobu la ko gëna beuri la mo lay gëna mëna def lu parfois day mais parce que amul énergie ci xol bi énergie bu tollu no xam dana mën a bañ def lola mom manam dañ koy bëmëx day melni ni ku ñuy bëmëx te du am énergie pour taxawal boppam pour freiner tayu bakar bi tayu ko quel que soit lu mu ko nakari naqari tayu ko fokk mu koy def même bu ci dul am benn plaisir lu dul le simple fait que plaisir def nako ba pare manam plaisir bi nekk ci rek le fait que mu ñàkk a mën a def maanaam le ñu xañ ko def bàkkaar boobu plaisir dindi loola rek la ci am mais dootul defati sax doo day ko nit def bàkkaar bi sax ba dootul am sax moom ci boppam dootul am sax plaisir ci def ko loolu laa waxoon gars yi bi muy bi bi bi bi bi bi ñuy tuumaale waajoo jooju <laughs> euh, euh, euh, DSK. Mhm. ci affaire am boobu. ñu né loolu nan la ko mané wala yoy nan la ko kii wala nan la yéen c'est que da ngeen comprendre système bi c'est que nit ki day def bakkar diko def diko def parce que tamit xam nga dafa am tout un ensemble de choses yu ko mënon tere def loolu tout un ensemble de choses yu ko mën a tere def de toute façon mais le souci moy nit ki day def di nekk ci bakkar bi ci né di ci né di ci né du né day def bakkar bi ci bopam moy neex ci mom du loolu mais le fait que ñak ko def la du mëna a muñ dootu ci amati benn plaisir à un moment mais ñàkk koo def rek la mënatul moom ci ngay xame ne nag ñu nekk ci caaxaan en réalité ñu nekkul ci yoonu dëgg ne li yoonu l'islam yoonu topp yoonu sharia topp yoonu sunna topp yoonu tasawuf ñi nga xam ne meluñu noonu ci ngay senti ci ngay xamee ne ñoom seen àdduna amul bànneex parce que début yi dinañ am banex ci liñu nekké mais au fur et à mesure dootuñ ci amati benn banex gis nga tuxkat bi au début dina ci am banex le fait que muy muxé ak yoy mais à un moment donné le simple fait que mu baña a tux mooy nekk problème manam maanaam du tux bi lay am banex de dede baña a tux bi moy problème am nan nankatu sangara bi non la mel kat bi non la mel et cetera top lool ci mbolam bakari yi yalla ñu yalla yàlla Deng, kon bok na ci mandarga ci ñi taxewal wal asqiya ak ñi taxé di alati yi bi nga xam mandarga yi nga xam la laata du wa man lam ak kep ko xamne ne man kep ko xamne ne lam wa man kep ko xamne ne lam tasor feñu lo ñen ko alamatul mandarga li ay fariq ñeel ñeel benn kuréel yakunu li ay fariq ci ban kurel bok yakunu lay ne manam moy ko xamantene mom waji bu ko xoolee gisul ci moom <laughs> amul ci mom ben mandarga mandarga taxé ni mandarga taxé ni moom ban kurel lañ ko wara mëna duggal kooku c'est une science aussi qui est très qui large boo xamante ne ñoom aarifu ne ñoo xam radiyallahu anhu moo tax li ñu xam ba dañu ak kaño bari doon xam ma radiyallahu anhu wa min a bokk na ci ilmu xam-xam hmm? aw laa di doomi layli guddi wan nahaar ak bëccëg wa bi maada ak ci lan lañuy la bay na baynahum seen diggante ku judd guddee ku judd bëccëg est-ce que xam nga ni amuñu Hmm. déedéet yamuñu de gudi inna nashi'atal layli hiya ashad wat'an wa aqwam qila hmm. <laughs> waaw <laughs> alhamdulillah ñoom ñaar yamuñu hmm. déedéet abadan loolu nag ñu bari xamuñu ko mais moom moom la lay wax ni bokk na ci xam-xam yi nga xam ne aarifu ne ñoo xam mooy bu ñu gisee nit nan la xam ne ni kii judd guddi la judd ak bëccëg ak pourquoi ku guddi ku judd guddi lan moom la affaire boobu di am effet ci moom ku juddi bëccëg lan la moom la effet boobu am ci moom xoolal yenente bi sallallahu la judd guddi gàmm da la dégg duñ dégg bëccëg gàmm <laughs> <laughs> surtout dernier tiers bi nag moo gën. Hmm. waaw yeneen ci saa saa heure boobu la gën a àdduna. Hmm. en tout cas ça dépend ci heure yi ci ci zone yi ak ci heure yi mais daal dernier tiers bi. Hmm. waaw lan moo dox seen diggante nag. mais xam-xam la c'est une science tout entière comme li nga wax buñ nee science nag mooy ay livre de ci ay chapitre ay sous-chapitre et ay masala ay. voilà. <laughs> voilà. Hmm, gars yi dañu xam bari na de. boo mu ne ah bokk na ci ilmu xam-xamu alqiyaamu ak taxaw. wa minhu te ci xam-xam boobu ci la nekkee xiyaamu taxaw al abdi jaam bi wala ilmu taxawu al abdi jaam bi bi si fa tey ni ci ñaari melo mu ta daat day ni yoo xam ne dana safaanoonte waxoo fekk moom mahmudun ku ñu gërëm la indallahi fa buur yàlla taala ji kaw ji fil xaale ni ci ñaari xaal yi maanaam le fait dara di mën a sax fenn loolu rek déjà dafa am xam-xam bu ci aju mhm. di mën a taxaw fenn mhm. léegi le simple fait loolu par exemple mu ne am na nag ci biir domaine boobu ay xam-xam yu bari tamit la dafa pàccaloo bokk na ci xam-xam yeneen ca biir tamit mhm. mooy le fait que am ñaari jikko ñaari melo yuy mën a sax ci jaam bi di mën a taxaw nekk ci biir jaam bi benn nit kese te ñaari jikko yi dañoo contradictoire <laughs> Gimana? waaw. effet de contradiction. waaw. te ñaar yëpp dañ contradictoire. waaw. ànd ak loolu yëpp moom dafa nekk koo xamante ne ku ñu gërëm la fa yàlla. ci ñaari xaal yëpp. da koy gis muy ree kontaan nangam yooyu. bu melee noonu yàlla gërëm na ko. boo gisee tamit mu mer. mu mel noonu yàlla gërëm ko tamit te ñaar yooyu dañoo contradictoire di kontaan ak a met ànd ne ñaari xaal yëpp yàlla gërëm na ko te loolu mën naa ne mooy su dee da kontaan ngir yàlla bu yàlla lu gisee loo xam ne lu baax la nga kontaan ngir yàlla bu mer jotee ngir yàlla tamit nga mer nit ñi nag bëgguñu loolu nit ñi liñ bëgg mooy kuy kontaan fu mu toll te bañ a mer abadan loolu mënta ne il faut bu fekkente ne. mais kontaan kay alhamdulilah mën nañu kontaan ci lan ci li nga xamantene moy mooy lo yalla waye li nga xamne day indi mbirum yalla ke lolou duñ ci kontaan nak wax dëgg yalla maanaam <laughs> ñoom nag li ñu bëgg moy ngay baña mer abadan ngay baña a ben manam dara luy wane ni yow daal li mom neexu la te loolu mënta ne nag bon loolu lii exemple la mais nak amna xam-xam bu addu ci lolou waa min a bokk na ci ilmu rahmati xam-xam bi xam-xamu yërmande allati bi nga xam ne hiya moom qaribul mooy bi jege minal muhsinina ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñay rafetal xam nga alquran la ne inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina lii wér boo wóor mooy yërmande yàlla day lu jegeñ la ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy rafetal am na nag maanaam yërmande yàlla googa ban lan la lim ne yërmande xam nga am na yërmande yàlla gu gu gu général ñëpp xam nañ ko le fait yàlla amul mbindeef yi loolu ci yërmandeem la le fait que yowmal xiyaamati bu euh, yalla até jammi du até kenn ci ci ci tooñ ko wàññi xàqam loolu yërmande le fait que yalla di di di wërsegal jamm bu ne wërsegal lu mu tuti tuti koku yërmande ak yenen ak yenen ak yenen mais ban ak yalla ban yërmande motax yalla nan naan goga mom mu askana la bopam dafa jege kan ñi nga xamantene ne ñoom ñooy rafetal ñoñu la jege. boobu ban yërmande la am na xam-xam bu caaju waxal ndax booba yërmande hiya mooy yërmande ar rahmatu yërmande allati bi nga xam ne wasi'at moo laa bokk la shay'in bépp mbir aw wala boog hiya loola booba yërmande rahmatan yërmande uxra beneen la mooy comme li ñu wax sànq ndax yërmande gi làmboog ñépp la wala beneen xeetu yërmande la yooyu xam-xam la boo xam te ne am na lu ca waaw yooyu ñoom ñoo ko xam radiyallahu anhu wa mi waa bokk na ci ilmu saadati xam-xamu texe wa min wute ci xam-xamu texe boobu la nekk ilmu xam-xamu xog mi atteg man koo xam ne as adoo texel na ko allah bur yàlla taala ji kaw ji ala kurhin fekk ala kurhin minhu maanaam fekk moom sax loola da buggul malgré lui waxu wate fekk moom fii almilaa ci xam-xamu yàlla sa ay doon ko texe la koo xamante ne moom moom ci yu bon lay bëgg di nekk nangam nangam mais yàllaa ko forcer pour mu nekk ku texe am na xam-xam bu aju ci loolu maintenant xam-xam texe rek d'une manière générale texe texe xam nga texe voilà yàlla na ni ko yàlla may wa mina bokk na ci ilmu xam-xamu tabdilu soppi ak sharai sharai wa nasiha ak nasaxal yi maanaam mooy abrogation yi le fait que charia yi di soppeeku xam nga charia yëpp en réalité charia yeneen bi lañ sallallahu alayhi wa sallam en réalité parce que moom mooy yonent bi nga xam ne comme ni mu ko waxee balaa ba muy nekk yonent adamaa ngi ci diggante ndox ak banam boobu nubuwa googu moo nekk ci yeneen yonent yi alayhim salaatu wassalaam mboolem yonent yi wa kullu rusulin nawal nakara wa kullu wasfin atar rusulul kiraamu biha fa innama tasalat min nuurihi bihimi min nuurihim bihimi wala min nuurihi bihimi waaw bépp melo boo gis wa kullu fadlin voilà wala wa kullu wasfin xamatuma lan mooy melo wala ngëneel bu nekk ci yeneen ci yàlla sallallahu bu nekk xamal ni ci leeram lañ ci leeram lañ ko puiser ñoom leer yeneen bi lañ ko puiser sallallahu alayhi moom mooy vrai yeneen bi nga xam ne moo tax amul benn yeneen buy ñëw lu dul comme nim nek nekk sourate Al Imran amul ben yonent bu ñew loolu day wax ne ah gaay ay la yeen amna ben yonent bo xamantene dina ñew man mi su fekke sama jamono man mi damay nekk wëlbatiku nek talibem kok moy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom bu ñewé na ngeen ko top bu mo fi fekke man ak yeen yeb dañuy wëlbatiku nek talibem suñu fi fekkul bu ñewé na ngeen ko top parce que real en réalité mom moy yonent bobu ñi ci des ñëpp ay ay ay ay ay lañ li gars yi doon def fële nu mu tuddati missionnaire. waa koy bàyyi. mahamadat rusulun mahamadat fataratun min ar-rusuli illa bashar qawmaha bikal anbiya'u ah donc sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mboolem yenent yi moom moom en fait moom mboolem yenent yi ay taalibeem lañ

sharia yu njëkk loon mais dañuy soppi nangam ñu am luñ ci soppi ñu dem ba ci kanam mu ne sharia bii doon nañ ko doxal fii man ak yéen nañ ko soppi nañ am luñ ci soppi soppi googu nag mook soppi yi ñuy soppi sharia ya benn la sàmba mooy bàcc en réalité moom moo fi yenent dëgg dëgg dëgg sallallahu alayhi wa léegi nag le fait que secret boobu nag secret boobu leeram gi nga xamante ne moo caractérisé ci partie leeram boobu am na lu ci caractérisé le fait que ñuy soppi charia yi ak abrogation di am ci biir charia yi am na xam-xam bu ca aju loolu xam-xamu aarifuna yi la radiyallahu anhum wa mina bokk na ci ilmu zuhuri xam-xamuk feeñ waminha minha wa min wute bokk na ci xam-xam bobu lépp lu aju ci feñ rek manifestation du feñ lépp lu aju ci feñ nak wa bokku na ci izharu feñ al al bu'di al bu'di feeñal lu sori fii aynil qurbi ci jëmmi lu jégué hmm ah wa melo yi ahli hadal ilmu melog ñi nga xamante ne maanaam melog ñi nga xamante ne mooy ñooñu yooyu la boobu la xam-xam tadiqu dana xat ana ko al awraqu maanaam kayit yi maanaam kenn mënul buñ doon bind ci kayit yi ñooña nañuy mel ak la ci aju kayit yi dañuy fees te te xam-xam ba du jeex ak melo yooyu mm-hmm. mooy di jegeñal lu sori parce que xoola comme yenen bi sallalahu alayhi wasallam bimu defé rañan bi djégeñal gañ ko djégeñal baytul maqdis mu koy dicté yéeféer parce que xam nga bamu xeyé ba netal ne la dafa démon Jérusalem gaay ne bon écoutez ki bimu dem Jérusalem boy la won xale bu ndaw la won légui neex bobu xamé wulon sax daanaka yàgg na neex na xam wax wax ne deug wala waxul deug léegi dañ ko laat Jérusalem nu mu mel <laughs> te xam nga diggante bi ay soppeeku yu bari am na yeneen yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme li alquran wax maa zaaxal basaru maa taxa bëtam nekkul woon di xool lu ne jéggiwul woon fu dul fuñ ko xolloo keroog biñ koy rañaanal moom boromam moo ko yitteeloon pourtant yi mu romb ak kéemaane mais nekkul woon di seetlu dara sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla moo ko yitteeloon d'ailleurs foofu nga am na différence bu mag bu mu am ak yonent yàlla Muusa ala nabina alayhi afdalu salaatu wasalaam parce que yàlla Muusa alayhi salaatu xam nga moom bi mu demee ba yàlla wax ak moom et cetera nangam moom dafa laaj loo xamante ne maanaam dana yàlla dama laa bëgg a gis damaa bëgg nga war na sa bopp te loolu taxul woon mu ñëw gis yàlla taxul woon mu ñëw fan ci rendez-vous ba mm-hmm. wax yàlla daal ñu jox ko liñ ko war a jox moo ko fa taxoon a ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom lañ ko won ci kéemaan yeb neeku won di xol dara mom djublu ci boromam rek lako taxolu djub ñaaral difference mom ak yonent yàlla Isa alayhi wasallam ale yonent yàlla Isa alayhi salaatu wasalaam pour mu supporter li dox ci digeunte fi ak asaman ñaaral asaman bañ ko yobbu yalla daf ko daf ko daf ko génn daf ko daf ko roof ay nelaw naka la wa is bi ko bi euh, mu naan ba rafa la déet du boobu bi mu naan wa is ah subhaanallah hmm? ah, it qaala allahu ya isa inna mutawaffiika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka mutawaffiika maa maa la roof ay nelaw wa rafi'uka ilayya maa la yëkkati maanaam da ko yëkkati ci ñaareelu asamaan si maa yëkkati jëm ci ñun ci ñun mooy ci man mooy ci ñaareelu asamaan bi la ko bàyyi place boobu mais pour mu yëg ba foofa il fallait que maanaam pour mu mën ko supporter foog laat ñu nelaw loo ko pour mu mën a supporter voyage boobu mm-hmm. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom kenn nelawloowu ko dafa gis lépp ba pare gis nga fa mu yëg ba fa mu dem voilà sallallahu alayhi wa mais bi mu ñëwee ah, yéeféer yi ne ko voilà léegi décriral ñu baytul maqdis bu mel ñu indil ko léegi ci saa si baytul maqdis tegal ko ko te ànd ak baytul maqdis ma nga fa mu ne mais ñu jegeñal ko ko gis nga lu sori lañ ko jegeñal mu feeñ maanaam lu sori moom moo jegeñ moo ñëw ci melo lu jege ci jëmmi lu jege muy décrire nag lenn lu ci dem mu décrire ko gars ne ay la yéen waa ji wax na dëgg sallallahu alayhi wasallam xoola moom la Seydina Omar defoon radiyallahu anhu bi mu naan saare yaa saareetal jabal mooy ñu demee ba quarante à quatre cent kilomètres à peu la woon wala ëpp na ko tuuti mu yónni woon benn waaye bu tudd Sariya radiyallahu anhu pour mu dem yóbbu à armée jullit ñi ñu dem xeexi ji bi ñu demee yéefiir yi ci ginnaaw benn montagne fekk Seydina Omar radiyallahu mi ngi Madina di xutba yéeféer yi làqatu ci benn montagne na di xaar yéefi di xaar julli ñi foofu maanaam en embuscade lañ leen bëggoon jël dañ leen bëggoon wër ndóor ndombo yene e, e, e, Seydina Omar radiyallahu anhu jekki-jekki ci biir xutba bi daan ne yaa saariyatal jabal yaa saariyatal jabal yaa saariyatal jabal eh saariya mooy dindikul montagne bi de gaa yaa ngi ci ginnaaw saar ya dégg ko plus de quatre cent kilomètres saar ya ko maanaam mooy li bii nii ci la aju mu ne ko saar ya dégg ko moom fi mu ne Madina mu dégg ko bi mu paree te xoolal li lay won ne léeg-léeg ñoom ñu def noo xamante ne nit ñi toog ak ñoom duñ ko xam te ñoom ña ngi koy def mooy lim ci teg bi ko Seydina Ali radiyallahu anhu laajee ne ko mais lu tax nga euh, euh, euh, nga nga ngay xutba ba ci digg bi nga naan yaa saarital jabal mu ne ko ah boo kon dégg nga ko mu ne ko ah, kay ñëpp déggoon nañ ko mu expliqué ko lu tax ce qui veut dire ni moom mën na ko def te nit ñi duñ ko dégg pré dis maanaam disposition yi la jëlul jour boobu pour def ko te nit ñi duñ ko dégg. mais bu ko te ñii duñ ko xam. voilà te kay dañ koy def loolu dañuy toog fii di waxtaan kii nekk fii ki ci des nekk Paris ki euh, ci kii des ca Pakistan kii nekk fële euh, euh, waxtaan te kenn ci ñoom déggul sa làkk moroom mais kenn ku ci nekk bu waxtaanee ak sa moroom ci làkkam. kooku maanaam bu koy recevoir da koy recevoir ay moom ci làkkam ñu tontonte gaa yi kaay de radiyallahu anhum waaw wa min a bokk na ci xam-xam yooyu elmu xam-xamu maratibu sujudi martabay sujudi fi sajidina ci biir ñëy sujud ay <laughs> allahu akbar wama ladi ak wama ladi ak ana lan mooy loo nga xam ne asjada moo sujud la ahla sujudi bi nga xamante ne laa a ba'dahu amul ak yëkkati ko ginnaaw gi mooy wàllu yooyu nga xam ne ñoom ñooy sajiduna yi maanaam dañuy sujjóot fu ñu toll seen xol moo sujjóotal yàlla dootu yëkkatee ko ci moom la yàlla sans borom parce que gis nga subhaanahu wa taala gis nga maqaama boobu nit ki bu ca jege yeggee rek xamal ni jege yàlla bokk na nag ci li mooy nit di jublu ci yàlla kese lépp muy sàkku xam-xam ngir yàlla kese di jëf ngir yàlla kese su pare ah ngir yàlla kese di jëfe exactement li mu xam na yàlla dina ko yeggale foofu noonu nga xamante ne day dem ba day sujjóot boobu sujjóot boobu moom la yàlla doon junj bi muy wax yeneen ci sallallahu alayhi ci début révélation bi mu naan ko iqra bismi rabbika ci sa turu borom gis nga jànga nga dajale mboolem parce que iqra dafa xa qaraa mooy jàng mais dafay tekki tamit le fait que nit maanaam dajale mooy mooy euh, euh, dajale le fait que ñu dajale mboolem xeeti xam-xam yi waaw mooy al qur qur tam foofu la jóge mooy dajale googu rek mu ne ko lépp na ko def nag ci sa tuuru boroom ngir yàlla kese xoolal loolu moom mooy première injonction bi maanaam fra kii verbe kii lan lan impératif mooy fi'lul amr gi amr hein ci lañ ko conjuguer à l'impératif du noonu deuxième bi ca jeexitalu saar bala wasjud waqtarib sujjóotal mooy sujjóot boobu tax mooy sujjóotu xol bi waqtarib te nga sàkko ma jege nga mooy booy sujjóot di ma jege après ci la ñëwee pour tegtal ko lu koy gën dimbali ci yoon mu ne ko ya ayyuhal muzammil qumil layla illaa qalilan nisfahu aw ba saar ba jeex ci la dooga jigéen ne yaa ay xeet yi waaw waaw après mu teg ci muzammil mu ne ko wasjud waqtar waaw après muzammil maanaam léegi nag nit ki ni mu war a tarbiya parce que daa war a xeex ak bakkanam yaa ayyuhal muzammil yow mi sangu ci bàjj mi xumil lay la jugal ci guddi gi illaa qalilan ba mu des lu néew awwal ba mu des saxu genn wàll gi nga yokk ci tuuti nga wàññi yokk ci tuuti warattilil qur'aana tartiilaa jàng alqur'aan nag lu lu bari jox na la wax jox na la moyen de hmm? ci la waxe sax layli li li li sosu hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila li soosu guddi tout le temps mooy gën a baax mooy gën a dëgër ni ñu koy defe ak ni muy sosoo ba pare mooy gën a dëgër mooy gën a taxaw mooy waaw ah après ci la ko wax na yaa ayyuhal mudassir yow mi nga xam ne nag léegi yaa sàngoo mbubb mi léegi mbubb yi leer yi sol nga ko fees nga ci der comme fa an biir jugal nag nga waaraat mooy nit ki bu tarbiya ba yegg nag léegi na jóg na jóg tarbiya gaa yi ci des waaga mais mun a waxal ndax xal xalaqallaahu bind na bu xalaqa bind na allaahu bu yàlla taalaa ji kawe al alama adduna bi yëpp saajiran muy aji sujjóot awwala ba xuliqa dañ koo bind qa'iman mu nekk aji taxaw su ma topp du aya ñu doog leen a woo nag ila sujudi ñu jëm ci sujud ban moo ci am ndax bindee fi dañ leen ni lay taxawal leen yàlla taxawal leen tàkk ngeen taxawal yàlla ñoom ñëpp ñu taxaw di toroxlu ci kanam yàlla wala boog ni leen yàlla bind au départ mooy dañ leen sujudloo wala boog dañ leen taxaw la woon ba pare ci ginnaaw gi la leen yàlla doog ko wax ginnaaw bi ba leen bindee ngeen taxaw léegi nag maa ngi leen di digal ngeen sujud aduna bi la wax waxul nit ñi de ak jinne aduna bi lo gis walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa shamsu wal qamar wan wa nujuba mina wa kathirun minal ah wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-azab yàlla lépp moko ko léegi nag est-ce que dañ leen a taxawloo woon ba pare ñu doog ak yooyu noonu yooyu xam-xam bu xóot la nag aw wala boo xalaqa yàlla dafa bindoon ba'dahu lenn ci adduna bi qa'iman muy aji taxaw wa ba'dahu leneen li sa leneen li saajidan nekk aji sujjóot wala boog dafa am créature yoo xam ne bi mu leen bindee daf leen bind ñu taxaw yeneen créature yi bind leen ñu sujjóot <laughs> muna wo wo gis nga lo li elmul xam-xam la sharifun bu tedd way way way way sik ne ko ci ne li xam-xam bu tedd la hmm hmm wa minha bok na ci elmu xam-xam al muqalab al muqaabalati jakarlo le fait que jakarlo di am am la xam-xam bu ci aju legi waaw mais defal ndànk loolu loolu benn affaire la ci waaw loolu benn domaine la xaa ngi yi soo waa àjjana sax ñoom ñëpp dañuy jàkkaarloo xam nga melo àjjana loolu xam nga mu amul amul ci àdduna àdduna li am mooy ñun ñii ñi ñun ñii bu ñu bu bu ñu defee ron duñ jàkkaarloo man kenn laa ci mën a jàkkaarloo bu ñu defee man kenn laa ci mën a jàkkaarloo mënumaa jàkkaarloo ñëpp sinon dina am ay côté et cetera mais aljana moom ixwaanan ala sururin mutaqaabiliina moo tax ñun mënuñu ko sax imaginer ñëpp ay mbokk la ñu doon nekk ci seen kaw lal ya jàkkaarloo mais Allahu akbar mu ne wa minhu bokk na ci ilmu xam-xam bi ak bi annahu li wër bu wër mooy laa yuqaabilu ko jàkkaarloowul ak yow minal aalami ci àdduna bi wala minal xaq du caagin ci buur yàlla bi nga xam ne mooy aji kawe ji ah illaa lu dul sifatu ko sag melo ah sag melo fa anta yow xijaabun yaay kiiraay ala nafsika ci sa bopp laa xayra du keneen du leneen wajhat da danga defal yitte defal sa effort yépp antara ji nga gis jëruma miraati jëmmi seetu bi fii xaali nazarika ci sax xaal maanaam jamono nazarika bi ngay xool fii haa ci moom defal effort yépp ba nga xamante ne seetu bi bi nga koy xool defal tout tout tout tout ba nekk ci xaal bu gën fala taqdaru mën maanaam def ko natt fa inna suurataka ndax sag xaal sag sag jëmm xaa ilatun fala taqdir mooy bul am kàttan bul jéemu am benn kàttan fa inna suurataka naka sag melo yow sa jëmm xaa ilatun mooy li nga xam ne moo dox bay naka sa diggante ba bay na xaa ak diggante seetu boobu dinaa la expliquer yaakaar naa sax point bi laaloon nañ ko keroog ci yiñ doon wax Euh, mooy waxoon naa la ne la yàlla yenent yi alayhi salaatu wa malaaka yi jinne yi wàll yi ñoom ñëpp bokkuñu li ñuy def loolu jàpp bu baax yàlla ak tajal yi tajal yi lay def mooy day manifesté wu joxon nañ la exemple yent yàlla musa sallam yàlla da manifester wu ci tak tak gi mais teki wu ne yàlla dafa soppale ko yow khamat yàlla na manifester wu ci jami ci melo wo xamantene ñom duñ ko xamé ba mu def aarifuna billahi après ci lay manifester ci ñom ci lo xamné da nañ ko xamé kóllëre manam mboko rahim comme li alcorane wa li yenen ci bi wax sallallahu alaihi wasallam ci hadith Tirmidhi rahimahullah bi mu naan yàlla bi muy yónni mbokk ci kaw suuf dafa jàpp ci ndiggam yooyu yëpp ay manifestation la yàlla moo manifesté woo noonu yàlla day def ay tajalliyat maanaam nit ki su gisee maanaam fii li mu li mu wax ne la te xam-xam bu xóot la bu garaaw la Euh, nit su nekkee nii moom na xam ne moom ci boppam lépp lu mu jàkkaar lool moom mooy seetu bi en réalité moom li muy gis ci keneen ki moom boppam lay gis te d'ailleurs loolu sax xam nga nit ki nit ki mbaax gi ne ci moom moom lay gis ci ñi ci des souvent soo xoolee en réalité koo xamante ne du foog mukk ci nit ñi ak mbaax dafa fekk ne baaxul <laughs> ah koo gis ni mu ne loolu tax nit ñu baax ñu neex a nax mi parce que ñoom ni ñuy <laughs> jàppee seen bopp loolu la ñuy jàppee <laughs> ñi nit ñu baax ñi di neex a nax parce que dañ dul imaginer ne nit mën na triant ba yegg ci degré tel ñoom duñ ko mën imaginer xanaa loolu kenn sañu ko la ci mm-hmm. <laughs> mais au fur et à mesure il faut muy def différence bi <coughs> mais pour dellu si waat ci loolu maanaam nit ki même yenent bi sallallahu wax naa la ko keroog bu ko nit ki gisee war na def tu tout tout ba gis yàlla à travers moom mais nit ki nag bu fekkente ne yenent bi sallallahu alayhi maanaam moom dafa am barrage ci doxam ci digganteem te loolu moo tax du gis yàlla à travers dara mais nit ki su gisee ne yeneen bi sallallahu alayhi dafa war a gis ne du jëmm yeneen bi rek la gis sallallahu alayhi wasallam mais ne yàlla tamit dafa manifesté wu at ci moom à travers jëmm yeneen bi mu gis sallallahu alayhi nit ki noonu nit ku baax ku ne nit wàll yu wàll boo jàkkaar loolu tamit war ngaa gis loolu ni yàlla mani loolu mooy may nit ki mu mën a am lool xoolal tey xale bi nga xamante ne borom roxol bayaan mi ngi koy nettali xale bi dafa ànd ak papam papam ne ko dañuy dem néegu yàlla ba fu mooy kaaba gi dañuy aji ji néegu yàlla ba bi ñu yeggee ci buntu néeg bi ci kaaba gi kanam rek ci ci ci ci bu ñu dugg ci ci jumaa ji xale bi daanu xëm paa bi jaaxle sët bi maanaam maam la woon ak sëtam paa bi jaaxle mais en réalité lan moo tax xale bi gis maanaam moom am lan la gis ba xam te paa bi gisu ko c'est parce que xale bi moom bi ko papa ji bi ko maam ji ne dañuy dem ziyaare ji yàlla dañuy dem aji ji ci néegu yàlla ba moom dafa defe ne en fait dafa jàpp ci boppam maanaam dafa incarne dafa fexe ba jàpp assuré wu bu demee dana fa fekk yàlla alors que moom waa moom femme <laughs> femme moom daf ko jàppee rek comme si voilà c'est une façon de dire nangam nangam mais que xale bi moom dafa jàpp bu demee day gis yàlla voilà moo tax manifestation bi yàlla def ci moom foofu. moom mag ji paa bi amu ko te loolu nag day dal mën na nit ki mën na ko am ci lu ne ci àdduna bi nga xam ne lu mu gis yàlla lay gis mais pas au sens bi ko caaxaankat yi waxe li muy tekki mooy moom day gis kàttanu yàlla ci lu ne day gis man-manu yàlla ci lu ne day gis sañ-sañu yàlla ci lu ne day gis xam-xamu yàlla ci lu ne day gis xereñ bi nekk bi bu yàlla ci lu li nga xamante ne maanaam moom mooy ni yàlla di manipuler mbir yi nu mu ko neexi di ko wëlbati nu mu ko neexee day gis ni yàlla ni muy dogalee mbir yi mbir yi wëlbatiku nga gis mi nga xam ne noonu lay amee administration bu parfaite ci univers bi maanaam moom daf koy gis ci lu ne day gis lu ne lu ne da ci gis yàlla loolu niveau bu baax am na yeneen niveau ci bëtu xol la ñu gisee yàlla pas ci bët yi nii loolu moo tax buñ ne nañu maa fexe ba gis loolu tax nit ki lu mu jàkkaar loolu rek na jàpp ne na loolu il faut entraînement la laaj ak tamit bon euh, réa kii la euh, nu mu exercice la laaj ak tar maanaam tarbiya maanaam éducation spirituelle la laaj pour accéder ci loolu waaw mais petit à nit ki mën na koy tàmm boppam nit ki mën na def ay effort bu gisee ko ci dimbali tamit mu dimbali ko ci et cetera mais nit ki loolu war na yegg foofu lu minimum mooy loolu am yoo xam ne nit ki bu fa yeggee day dem bay gis melo yàlla yi ak jëfam yi ci lu ne ak manifestation ni yàlla manifesté woo ci moom ci lu ne ba mu am loo xam ne moom la wax ak zawq mooy guu ci mbir yi dëgg-dëgg mën na dama dem bon ay ba yegg ci yeneen i niveau yu gën a kawe yooyu ala kulli xaaral li ma maanaam junju kii bi rek laa bëggoon def maanaam mm, affaire bi rek maanaam loolu lan la réellement de telle sorte que nit ki kon lu mu gis day gis ne moom boppam la jàkkaarloo pour revenir ci yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa léeg-léeg nit ki mën na ko gént exemple gént nit ki gént ko fekk mu mel neneen noo xam ne bokkut ak ni ko décrire loolu fu mu amee comme li ñoom an-Nawawi al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ma wax loolu fu mu amee dafa fekk lan dafa fekk ni nit ki ci boppam ayib bi ci moom la ne loolu day dëgëral wax ji ne moom moo moo am ay bopp mais ki mu gis dëgg la yenent bi la sallallahu alayhi wasallam parce que yenent bi sallallahu moo ko wax ku ma gis ci gént man nga gis mais ayib bi ci moom la ne waaw mooy tey seetu seetu bi so demé ni ñu seetu bi au lieu ñu sétu nga peinture ko peinture peinture ba ba sétu bu tëju loy gis bo xolé bu féké dal nak sétu bi dafa tilim tak tak tak ngay xol di gis ab tak tak bu tak tegu ci sa kaw bëd bi wala bu tegu ci sa kaw lex bi tak tak bobu fa la ne du yow du du sétu bi la ne lool la sa xol nak dang ko wara a def sétu nga ci gis à travers sa xol lepp nga ci gis yalla mais xamal ni lepp lo jàkkaarloo rek sa melo la à travers euh, euh, keneen ki euh, moo tax par exemple même même nit mais yeneen bi saa saa mën na feeñee ci yeneen mel comme li ma la ko wax ak boobu nga xam ne yent yàlla saa saa ñoo ko am comme exemple bi ñu la joxoon ci yent yàlla Moussa alayhi salaam nga xam ne sans yent bi saa saa da ko romb ci bàmmeelam muy julli mu dem ci kaw sixième asamaan fekk ko fa muy ndoo muy julli fii jiite ko baytul maqdis mu fekk mu ne fa muy ñetti place yu mu ne te fekk fépp daf faa nekkandoo parce que ñoom dañu am loolu te am gudd googu muy googu ñuy limu nekkandoo ci place yëpp mais benn nit ki moo tax nit gis nga loolu nit ki bu ko bu ko exercer ci biiram day dem bay bay bay ba ba ba day day day mën a accéder ci monde boobu noonu sans problème léegi nag ñu jeexal ki bi mu jeex mu ne waminoo bokk na ci ah, wala waaw ci moom ci moom la xadiis ci la xadiis bii roxe mooy bi mu naan almuminu jullit aji gëm miraatu mooy seetu axihil mumin mbokk jullitam mbokk gëmu waaw maanaam xadis bi mu ngi ci Abu Dawud rahimahullah ak Bayhaqi rahimahullah rek ñeneen dégg nga mu ne kon fala yasul du jokko al abdu jaam bi ila maqaami tathir yu yu yi nga xam ne day torox illaa lu dul isa saara bu mujjee laa yaraa dootul gis axadan kenn wala boog laa yaraa du gis fii axadan ci kenn ayib ak ayib nit il mu dem ba nga xam ne du gis ci kenn ayib li annahu ndax moom xiina idin boobaa raa day gis fii axihi ci mboqob jullitam suurata nafsihi melog boppam nit ki bu demee ba set complètement ci bàkkaar ci ayib ci défaut ci wol dootu gisati ci kenn ayib parce que ku mu xool rek moom boppam lay gis xam nga jullit mooy seetu la seetu moroomam la mhm. loolu bii sens la benn sens la am na beneen sens mooy lan mooy jullit boo gisee ci moom lu dul noonu comme seetu la sa seetu la mooy yow soo gisee ci moom lu baaxul mm-hmm. da ngay xoolaat sa bopp mm-hmm. est-ce que man kon du man maa mel nii moo tax kii mel nii mm-hmm. ba pare tamit à travers kooku da koy daal di mën a dicter maanaam danga koy mën a corriger correction boo xam ne day sincère comme tey boo doon seetu gis sa bopp tey soo doon seetu gis sa bopp gis ci gis ci biir seetu bi gis ci benn affaire boo xam ne jaaduwul ci sa comme sa karaw bi peñe woo ko bu baax ah wala kol bi nga yére bi colu colu colu chemise bi par exemple ni mu dee ko baaxul wala am na takk-takk bu nekk ci sa ci sa lex bi te gisoo ko woon nga daal di koy dindi noonu tamit ngay mel nit ki bu incarné dëgg-dëgg li ci sens bi day dem ba mel noonu par rapport ak yeneen jullit ñi bu leen gisee ci lu dul noonu daf leen di corriger day mel ni ci moom la ne parce que c'est mooy seetoom la maanaam moom day reconnaître boppam à travers waa